asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki julli yi soppe alquranul karim mbokki al ihsan daara ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen sant bu baax a baax ci seen taxawaay euh, bu yàggul dara organisé woon nañ fi benn collecte de fonds pour jënd yére sedd yóbbu ko ci daara yi yàlla dogal ñu soxla woon ci 2 ci mbaaxu yàlla ak seenu tabe ñu am lu ëpp 3 millions muy lu kawe suñu njort ñu leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm waaye tey dañoo ñëwaat ngir tàllalaat suñu loxo ndax dañu jaaxle ci loo xam na sax ak ba tey la ndax day suñu mbokk moo xam ne yàlla dafa dogal mu tawat tawat ju yàgg te metti te muy kenn koo xam ne ci ahlul quran la bokk te muy kenn koo xam ne ci al ihsan la bokk bokk ci membre yi bokk ci membre fondateur yi bokk ci bureau bi ñuy doxal al ihsan bokk ci ñi yoroon li gën a kawe ci liggéey bi bokk ci ñi nga xam jàpp nañ ko ba mu agsi fii yàlla dogal mu tawat tawat ju yàgg te metti ah boobu ba léegi nag mi ngi faju jërul ñuy tudd turam jërul ñuy dugal vidéo am wala photo am ndax sàkk ci ñun lii ñuy def sàkk ko ci ñun te it jàpp nañ ne it gënalu ko waaye dafa toll foo xam ne nit ki bu fa tollee moomatul boppam ay mbokkam sax moomatuñ ko moo tax xoolatuñ lu ko neex ak lu ko naqari tawat ji ko ji ko dal lañ bëgg mu saafarawu te muy loo xam ne xaalis bu bari moo ko war a def ndax day laaj génn réew mi ñu sàkku ci mboolem ñi nga xamee ne soppe alquranul karim lañ mboolem ñi nga xamee ne waa al ihsaan lañ mboolem ñi nga xamee ne bëgg nañ di taxaw jullit bu toll ci ay jafe ñoo ngi sàkku ci yéen lu ngeen ko mën a dimbalee ngeen dimbalee ko bu leen neexee ngeen jaarale ko ci sama numéro 77 215 17 18 bu leen neexee it ngeen jaarale ko ci numéro Abdoul Aziz Camara di mbokk yi. kide de ku amal njëriñ alquranul karim la kide de ku am yene la ci alquran te bokku na ci ay yéeneem Sénégal dem ba am chaîne bo xamne chaîne télévision seen télévision bo xamne alquran dong lay génn te it mi ngi ci doon liggey liggéey bu am solo bañ na ñuñ xam fi ci rew mi ci ño xamne ay nit alquran lañ ci ño xamne ay jàngat alquran lañ ñu xamne ba bitim rew mom mo leen doon produire mo leen doon film mo leen doon genn mo leen doon woné kon ki ku ñu wara taxaw la ndax yene gi mu am ci alquranul karim warul ñoo seetaan dara di ko dal te defuñ ci li nga xamee ne mooñ ci war kon maa ngi tàllal loxo mbokk yëpp képp koo xam ne def nga ci sa dërëm wala nga partagé sax bu dee euh, mënoo ci def dara nga partagé vidéo bi rek yàlla suñu suñ borom taxaw yàlla na suñ borom teggil la bépp natt bu nekkoon ci yow yàlla suñ borom musal la ci bépp musiba booy ragal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu